ningi nanga ada le 25 novembre à l'arène nationale mbokk yi Jandeer production moo ñu woo arène nationale indil ñu nag affiche bu mag a mag a mag du xam ngeen Modou Anta bu Thiès ndaanaan bi champion bi jàmbaar ji moom la Jandeer jël daal di koy boole ak Aliou Seye numéro 2 bu waalo doomu Géejuwaay xale bi mën a bëri lool tey jàmbaar mbokk yi boobu nag la ñu jël daal di koy jagleel Yves Lamine Ciss mooy maire bu Morolan di jàmbaar ci gox ba combat bi war a dox ci diggante Boy Jaxaaw bu Thiès maire de Kayar mbokk yi Clédor dina fa jàkkaarloo ak Junior drapeau Zalmbay opérateur économique nekk foofu ci commune bu Diender mbokk yi Wassintour dina fa jàkkaarloo ak gaz bu ñàkk ak yeneen six combats ci bésu le 25 novembre ci arène nationale lamb ji nag mbokk yi en live pay per view ngeen ko mën a am ci seen affiche point com que ça soit Sénégal wala bitim réew ci seen affiche point com dong ngeen mën a jaar bu seetaan lamb ji dox ci diggante Modou Anta bu Thiès ak Alioune Seye bu Waalo ci ak Diender production mabase yofero son e ngorma kañota e karpile always the king every time the, king Every second the king. Balla is the one a lot. Thanks. Jërëjëf mbokk yi. Seydou. Non non maa naan fekk Jërëjëf mbokk internet kon ñu ngi leen di nuyu baax na inchallah. Tey ñu ngi fii ci Géejawaay. ñu ne nag mooy open press ki nga xam ne moom mooy Boucher Ketchup ngir waajal eh, dimanche lamb bi nga xam ne moom la war a joo xam ne kenn ku ne gis na waaye daa bis waaye bis bi tey def bokkul ak bis yi nga daan am. ndax adversaire yi bokkul. préparation yi bokkul te gis nañ sa adversaire tey nan nga waajee di bàyyi la ko jëlee national. nuyu di nuyu la presse sénégalaise. di ñaan yàlla ngeen yàgg fi loolu ci wér di ñaanal sama kilifa yëpp di wax Sénégal nag muy artistes yeeg stars yi nekk Sénégal yëpp yi ñu naan star ñi nga xam ne tey presse da leen di topp di leen jël ay lancé waat appel encore une fois man sama bis moom kenn du ci toroxal ku yor presse sama bis kenn du leen ci wax dara parce que man maa leen kenn taxu leen jóg te maa ngi ñaan artistes yi nekk Sénégal ak nitu média yëpp ñuy protéger la presse parce que nu ñu mel la presse la tey bu ñu toogee def suñuy def te ñoom wane wuñ ko duñ tekki dara kon nañu xam ni chaque jour ñu mel ñoom ñoo tax nañ leen di wormaal tey ni di leen jàppale tey niñ leen doon buuxee neexuma ñu ci bari te loolu maa ngi leen koy massawu di ñaan yàlla bu mu amati ñu leen di sargal chaque jour ndax bu dul presse bi ñun duñ tekki dara waaw d'accord sa waaj ak Jokal waa Jokal waaj nañ ko Ah, Fadel dama nekk ci làmb di comédie ndax comédie bi dafa ànd ak jamono ndax jamono ji léegi boo bëggee nit ñi naw la nit ñi fonk la da wàccee sa bopp di leen wan ni yéen ma gën parce que noonu la bindoo soo bëggee jaay yenn affaires yi rek dañ lay xeeb Sénégal bëggul ku yëg boppam ak ku rëy moo tax bëggul succès waaw bëggul ku yëg succès bëggul ku ko wàccee moo tax sama genre yi dañuy wàccee seen bopp ba mel ni suuf si di def affaire comédie di neexal mais barke seexul xaddim lépp lu champion di def mi ngi ci suñuy bopp lépp lu nit ku baax bëgg pour tekki wala jaar fa mu ngi ci suñuy bopp lépp lu nit bëgg ci lu baax mi ngi ci ñuy suñuy bopp mais ni Sénégal di doxee rek moo tax ñuy doxee noonu di ànd ak ñoom mais làmb léegi dama dem ba xam ni sama comédie naa ko yemale feneen waaw ah, boo da nga changé léegi. ay showbiz ak yooyu mën naa ci comédie ay mbedd ay affaire yooyu mais làmb dootuma ci comédie. Hmm. Hmm. jël avance ba combat bi des ay trois jours naan waa blessé yooyu yëpp. loolu mënul nekk. loolu duma ko defati. parce que ñu bëri ñu ngi naan. bu si këcëb su bëree làmb ji dinañu jaaxal attanale ba mu des deux jours daa feebaral. mais loolu jeex na ci làmb. man dama doon naxante di def ay affaire di teg xel. boobu duma entraîné duma nekk ci dara. di nappaate di tiital sama adversaire mais léegi damaa nekk ci dara dama xam ne xale laa ma dem liggéey bàyyi lépp dem entraîné ji bàyyi fa sama njaboot ñëwaat fii rayaat sama bopp jeexaat takk école de lutte moo fa dem encadré ma samay kilifa jàppale ma ma war a ñëw bokkaat ci làmb làmb kenn moomu ko nee naa la boo demee ba rëg-rëg bëreeg Sa Thiès Ada Fass bëreeg guy gi Bombardier rëg-rëg Ada Fass guy gi lay waaj a bëreeg guy gi bëreeg waaw si sos la jógee tafaatin mën naa bëri man kan billaahi walla non non dama lay dama ne la làmb laa la wax suñ demee ba ñoom ñëpp di bëri seen biir bu leen bu mu leen bett ñu ne buuse bombardier wala buuse tafaatin nga jël ko par làmb leen ba boole wala nga jël ko par xaalis lan moo tax guy gi jël aarafaas parce que dafa daan sos déedéet du loolu de guy gee raw téeméeri zos guy gi soo gisee mu jël Ada Fass xaalis moo tax. dama ne parce tafaatin mën na maa jël xaalis. parce que man am na mbër yu mag yoo xam ne ñu ngi ci làmb ji def ay 449 442 combats. maa leen ëpp coow fuuf sama open press bii tey jiili. Hmm. mën ngi ci làmb cent ans. déedéet. ndaanaanu géejawaay yëpp dajaloo. sama open press bii boo compté mbëru géejawaay ñi ko fi am matul 3 mbëru géejawaay yëpp nag matul 3 nga dem Pikine ña ko fa am ñëpp matul 2. loola may loolu. loola may loolu. wàccee sama bopp. est-ce que du xaay gaay comédie bi moo leen gën a def moom laa lay wax wàcce sama bopp ba yem ak ñoom ku ma romb nuyu la su ma yoree sama teraanga ku ma ci mën a jox jox la ku romb ma ñaanal la yéen a ñëpp jàpp. waaye Boucher da ngaa jël adversaire boo xam ne tey boo ko jàppee lu yomb it yombul foowul fooluwul ndaw la am na doole macha allah te day bëri te nee na xaarul nga may ko li mu bëgg lay jël si Lamine limal ko ñan la jokkeel daan bari na ay champion rek la daan limal ko benn ci ñaq jariñu rek doy na si ñaq jariñu waaw daan na Tidiane Faye mm-hmm. bëri na ak góoru Sock mm-hmm. daan na Saalum Saalum mm-hmm. bëri na ak Maama Lamine bëri na ak Kéwél bëri bi nga koy jël xamoon nga ñoom ñëpp. xamoon nga ñoom ñëpp bëri na ak ñoom wala. non xamoo ko dugg nga ci piège bi mm-hmm. faram bi ma koy jël. yàlla rek moo tax wax. plateau Lamine mii laa di lim. bi Lamine limee boo seetloo sama kanam gi changé na. koy fàttali. damaa toog ñu naan Jokkel jot Jokkel benn kombaam laa seetaan mu yomb rek ma ma ma tëkk ko deux ans. Mhm. muy mook Ada Fass. daa bëri ma Fass rek mayatoo ko jàpp. yaa mu pare ak kéwél ma gën koo sonal. mais bi ma toogee ci Lamine Lamine lim ba lim Saalum Saalum. waaw borom kuuru Baye Faye borom càmmoñ. xoolal loolu borom càmmoñ ci li Baye Faye borom càmmoñ. laa ilaaha illa moo doon daa ci doon lool ak fëgg Jokal soo bëggee dégg mooy laa làmb bëri nag làmb. léegi nag dama bëgg a wax na yéen ñëpp ngay dégg yéen ñëpp ngi lim lee ngi yéen di lim Dakar Buzz ak Philippe TV bu mag bi yéen ñëpp a wasaare ñëpp jàmbaar ak ñëpp fadam ñëpp ni ngeen ko limee noonu dara jaal ko wax ay victoire am wax ay qualité am dama bëgg su ma ko daanee ngeen yóbbu ma ko sori ci boo daanee du ñoo la fa yóbbu jël bee la yóbbu mais est-ce danga daan la ñuy wax. Eh, eh, weesu naa daan man waxatuma waxi daan. alors eh, loolu lay question ah waxi daan laay wax. bëri mooy lan bu ñu bëree. a ah, bëri bu mënta ñàkk boo boo dugalul médical. man dinaa dugal médical. ah tey la jeudi àjjuma suba njàmbe day dem weekend. kon kay bëri day am. njàmbe day dem weekend fajar 9 Saint-Louis la man damay biddanti gis nga te man damay biddanti bu ma doon dugal tey laa dee. bul fi dawal scooter. dawaluma dara. bul fi lang ci ay ay languma dara. bu fi lekk sax lekk cere ju bari bu lay farloo. maa daal la ma sama soxla togal nii kër kër Assane Mbaye. dama daa dama daa yàpp. bu dama daa dawul biir dinaa bëri. nan nga fas yéene bëri kéwél parce que gis nga champion yi mu dajal. kéwél parce que champion yi mu dajal nga gis boo ci jukkee Saalum Saalum rek xadar ak ñeme ci moom la wàññeekoo nga fas yéene jàkkaarloo moom te xam naa xel na ne la mu yan ñee gaw ma nga attan ko. non mënu maa yéen dara. ah len lenn daal laay bañ jàppante bu yàgg bëre bu yàgg. yow amoo looy bañ. non dama koy bañ. lu tax jiili. billaahi wallaahi tallaahi damay xeex. bu arbitre bi prime nga dagg jéngi. barke alxuraanul karim bu arbitre ne prime ma dagg jéngi. vaar am na de. néew ma la damay daan. néew ma la damay daan xeex yàlla laay ñaan suñu borom. mu may ma ndam. Mm. mais am naa gëm-gëm ni barke Cheikhul Khadim mi ma yaakaar. bu mm. bi ne prime damay wut ci kaw. non mais amul gëm-gëm dama ne ndax danga dangay xeex wuti ko. bu arbitre ne prime ma xeex wuti ko man maa koy fekk ci. man sëkkuma ak Jokal lu ma koy xaaree man rus naa loolu loolu xam nga lu tax ak par bu rëy bi mu am lépp mais man maa taamu ni damaa bëgg a bokkaat ci làmb foo ma wane sama bopp mais booba da ngaa xamul ñim daan non su ma yoon nekkul ci ñim daan mënuñu ma góor soog dafa ma a daan góor soog mënu ma la ko waxee gëm ma booy sama bopp sama jéggi sama takk sama njàmb taxaw samay mbokku darma amul mbër mu ma mën a daan mbir géej balaa nga doon xam maa mën a bëre nga géewal ma ak booy yi ngay dégg ay Mor Kankang ay Ada Fass ay xoolal ay ñoom ñëpp wuy ma paquetu mbiskit nga tegal ma ko ci géej gi ak booy génération lamb ji yëpp du ñu lekk benn mais combat bi buuse xam nga ni caaxaan mayu la ko parce que bu demee ba buuse di def open press Balla Gaye ñëw Sidi Diop ñëw yéen Guy gi ñëw Pape Diouf doon ñëw gis nga Pape Diouf si tali bi par Diouf di ñëw ma génn parce que lamp yi yaa ngi dégg Sa dafa am dese. kan moo gaañoo. Ah, benn rakka benn xaritam moo gaañoo Europe. ñu koy indi mu dem ci levée du corps. yàlla ko yàlla woo ma sànq ma ne ko defal lu la neex man yooyu du ma ci mere nit yooyu du ma ci jàpp nit. mais mais mais pour. la de guerre même chose. woo na ma non bu dul combat bi sax dafa naroon ñëw. woo ma ni ma def ma appel vidéo xam loolu mooy mbégte. pour woon rassurer ma def ma appel vidéo woon ma àll yi. mi ci àll bi. maanaam kon maa ngi sant yàlla ñoom ñëpp kon tey am na fu ñu ma teg. ah di gërëm euh, Lat Diop ministre des sports. daf ma waroon a ñëw surprise. barke alxuraanu karim daf ma woo ci biir géew bi ne ma dama la doon surprise mais léegi lañ ma woo Paris mi ngi noonu di dem Paris. yàlla na ko yàlla teg coono jàmm mais damay ñan nga préparé combat bi. combat bi ñi ma ko préparé la. Njambaan. kan Njambaan. laa préparé Jamono. Loren su guy bu ndaw. Safara. yaa ngi dégg Bada. fils de Balla. sa waa école daal. sama waa écrit ay caatu daaw dafaal ñoom ñëpp jàppal nañ ma ci combat bi. kontaagoo ci yow Balla wala. Balla Gaye démb rek ñoo nekkoon saal. ay gabar siin. chaque jour gabar siin ay marle ñun ñëpp a ñëpp a jàppale Pape Thiam ñëpp a jàppale contact. damay contact bay miir sama waa école ñoom maaw góor a fal picc ramatug ñoom ñëpp ambulance di ma yëkkati di ma weer di ma weri dama daj lu méttee méttee mett mais li ma koy laaj rek ndax xam ndax Boucher li ngay wax nii yëpp waxu ko fi sa qualité adversaire adversaire bi nga am dafa nekk mbër moo xam ne nii mbër mu naqaree bëril la. te ñu mel noonu mbër moo xam ne nii day songu day xeex. Boucher ndax lii nga ñuy wax ni ak lii am ci géebu ndax benn la. Fadam moo tax ma leen koy waxaat rek seen micro yi ngeen ma tiim di ma laaj di yëkkati sama adversaire dama bëgg su ma ko daanee ngeen xàllal ma yoon ci làmb. da jàpp da koy daan. dama koy daan. foo ko teg. champion la nag. foo ko teg ci doole ak kattan ak liggéey. bu arbitre ne prix. ku gën a ñeme lu métti yéen ku gën a ñeme ku ëpp doole. ku gën a liggéey ku dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam ku gën a fere ci làmb ku gën a fere yàlla na ko yàlla may ndam. ñaar da nga fere ci biir lu bari. Bada kii Baye Balla tere laay ñemewu ma géejawaay tim may wax wax ju bari. Hmm. école de lutte Mor Fadam la wax boo fa génnee Pambaay ak man te booy yi xam nañ ma ñun ñëpp école de lune Mor Fadam kenn dàqu ma fa bëre géejawaay laay wax sax waay yëpp man la neex nii rek may foo jóge fi tukki jam nekk ci yëfi ah, euh, jamono ki euh, euh, nekk li jën sama bopp mais barke Serigne Bamba Mbacke jii li kenn dàqu ma bëri ci laam lan ngay wax sa adversaire mais à nga bàyyi fi préparation yi dem Kigali Liberia lan moo tax loolu fekk nga pare. wala combat bi da ko jël à la lamb amul stress soo paree da ngay wóolu sa bopp samedi ci guddi mën naa dem soirée Pape Diouf parce que lamb du ci ay dem soirée yooyu pareel nga wóolu sa bopp entraîné naa maa ngi ñàkk maa ngi yëg sama bopp. naan samay vitamine mais sama xel dal na mais lan mooy soirée boo ma yóbboo soirée suba. kañ laay bëri dimanche. boo ma yóbbuwaatee kii gari tey ma dem. lan ngay wax sa adversaire. di gërëm ministre des Lat Diop. jàpp na ci. grand moo Ndiaye mu Lamine. Mado. Amérique Malick Naar. Lamine. Malick Naar. Malick Naar sama soppe ñu koy xaar ci billet yi. non da koy jënd day jënd billet waaw war a yónnee xaalis ci billet yi. am na ku mu ko jox te dina ko def man xam naa ne dina ko def daa jàpp nag Malick vocal naa la démb mais gisoo ko. gisoo ko booy yëpp ngi ni soppe yi ah, booy ko loon di xaar bi Malick Naar. Malick la ñuy xaar. Malick la ñuy xaar. nga ne mbër bu dëkk géej waay. waaw jour si bu mu jënd bee bee yëpp yaa koy jënd. barke Serigne Saliou Mbacké wax naa ko télé bi mbëri géejawaay yëpp supporteeru géejawaay kenn jëndul bee Malick Naar la ñuy xaar Malick Naar dafa jàpp fan yii yëpp. mais incha allah rabi Malick booy ñu ngi lay xaar non dina ñëw parce que daanaan la garmi la Malick naar en jibi moom la booy di xaar ci biir Malick ma ngi lay bëggee lan ngay wax sa adversaire mi ngi lay seetaan loo ko la di ñaanal sama adversaire mu wér tey damaa kontaan ndax Baye Balla bi mu taxawee di wax ay qualité man damaa bëgg mbër mu am qualité Baye Balla li ma gën a bañ ci àdduna mooy bëreeg mbër mu tekkiwul dara mbër moo xam ne deful dara ci làmb lu ma koy doyee. su jàppale jël mbër yi dee. yow nga tiit ba ni comédie dindi naa ko ci làmb est la. damaa xam ne su ma daanee mbër moom Baye Balla fu ma taxaw ci nag may soosal te nag may jox cër mais dama bëgg di bëreeg mbër moom mën a bëre mais te bu incha allah neexee yàlla dima su ma simmee koo ngeen xam ni pom du ma romb néew. Boucher xaaral dafa am lu ñuy xaar ci yow sa sa combat passé gisuñu ko muy ambiance fecc te amateur yi dañ koy xaar ci yow bari na ñoo xamante ne tey dañ dem stade juste pour indiwu ma dara waaw léegi lamin waaw gis nga li ma fay nii ñii ñoo tëgal nii dama leen fay ba làmb ja quatre cent mille laa leen fay pour ñu ñëw yóbbu ma ba làmb ja yan façon bàq nga mën a ñamal dinaa la ko ñamal mais damaa bëgg père Bira Sène may dégg woo naa ko téléphone mhm. barke alxuraan woo naa ko téléphone télé laay waxee ne bëgg nga may ma tambour major ndax maay bëri avant grand combat mhm. lamb nañu bàyyi ay benn grand combat mooy indi ay sabar am na ñoo xam ne dañoo neex grand combat ñun ñoo a neex waxtaan la dañ koy waxtaan am na grand nañ ma may samay tambour major ma yëngal stade bi toj stade bi ñawal naa safara mayluus ñawar Moussa Mboub mayluus pour gauche droite maay taxaw ci kanam bàkk bi waaw bàcc bi di buuse a naw la daa foor la rek. ana kaay kaay kaay kaay may ko may ko may ko. galaay galaay njulli bi. kàcc kàcc kën kën kën. buuse naw la daa foor la kàcc Ouzin nawle daa foor. Ouzin nawle daa foor. nga naan taas ma taas. gën. taas ma taas. gën. bu la dagg sa gis tabax cawara doon doon tay tay. bu la dagg sa gis tabax cawara doon doon tay tay. taas gën taasal gën. cawara la gis la gis gën tagi la gis. nawle daa foor. demal demal. Poussé nawle daa foor. Poussé nawle daa foor. Poussé nawle daa foor. Poussé nawle daa foor. Poussé nawle daa foor. Poussé nawle daa foor. Poussé nawle daa foor. Poussé nawle daa foor. Ganaan taas mba taas. ay waay jën gata ba njambax kee. taas mba taas. ay waay jën gata ba njambax kee. Wala dëgg sa ngi sabax coro ronda tete. ay waay. Wala dëgg sa ngi sabax coro ronda tete. Taskin, tasagin, tanagi takiki tanagi. No let that fall. Ay waay. Ñi ñent bët yi bu dajé. yàkkan yàkkan yàkkan parce que dama ko mën Will Lamine yàkkan Will dama ne ah. Paada Balde buntu Pikine lay toog di wax mais bu yegsee Géejawaay di wax nee na moo la mën cent mille na ndox sama lépp pare naa pour ñoom Lamine samay gërëm Lat Diop maa ngi koy gërëm encore une fois. Lat Diop ñaan sénégalais yëpp ñu jàppale ko. waaw Coupe d'Afrique ñëw. ndax coupe d'Afrique yëpp sénégalais yi la nañ bàyyi affaire u benn nit affaire yi affaire ñoo ko moom nañ ko jàppale te fier sa géejawaay la di gërëm Badara Gajaga di gërëm Matar Diop suba teel Birane di gërëm Massata Naar ah, encore une fois ningi nanga ada anomaat le 25 novembre à l'arène nationale mbokk yi Jandeer production moo ñu oo arène nationale indil ñu nag affiche bu mag a mag a du xam ngeen Modou Anta bu Thiès ndaanaan bi champion bi jàmbaar ji moom la Jandeer jël daal di koy boole ak Aliou Seye numéro 2 bu waalo doomu Géejuwaay xale bi mën a bëri lool tey jàmbaar mbokki yi boobu nag la ñu jël daal di koy jagleel Yves Lamine Ciss mooy maire bu Morolan di jàmbaar ci gox ba combat spécial bi war a dox ci diggante Boy Jaxaaw bu Thiès ak Youssou Ndour bu Lébu maire de mbokk yi Clédor dina fa jàkkaarloo ak Junior drapeau Zalmbay opérateur économique nekk foofu ci commune bu Diender mbokk yi Wassintor dina fa jàkkaarloo ak gaz bu ñàkk ak yeneen six combats ci bésu le 25 novembre ci arène nationale lamb ji nag mbokk yi en live pay per view ngeen ko mën a am ci seen affiche point com que ça soit Sénégal wala bitim réew ci seen affiche point com dong ngeen mën a jaar pour seetaan lamb ji dox ci diggante Modou Anta bu Thiès ak Alioune Seye bu Waalo ci ak Diender production e papa sey yo feroson e gorma kañota e gaspile